أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهدت بربوبيته وألوهيته الكائنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu fa inna salaasata al usul li seexi l islaam wal muslimina mujaddidu daawa wa diin muhammad ibnu abdul wahab ajza allahu lahu al ajra wa sawaab qad jadda annaas fi xifziha li taazimi nafciha téere bii di usulu salaasa nga xam ne boroom xam-xam bu ñuy wax muhammad ibnu abdul wahab moo ko taalif moo ko bind nga xam ne ci daawa lislaam beesalaat na ci lu bare bari woote boobu nga xam ne woote lislaam la moom sëriñ boobu di muhammad ibnu abdul wahab beesalaat na ci lu bari lu mu fekk nit ñi yàq ko mu defaraat ko yal nañ ko yàlla fayal téere boobu muy usulu salaasa ñu baree bari sonn nañ pour mokkal ko lu ko waral ndax njëriñ yu ci nekk dafa bari téere bu tuuti la waaye ci àddina bi di nga fekk ay nit ñu baree baree mokkal ko ay sëriñ ñu baree baree baree baree baree baree bari daal di koy sharxa daal di koy leeralaat ñii sàkku xam-xam ci àddina bi ñu ci bëri dañuy daw di jëm ci téere boobu ndax ay maanaa yu mu am kon dina jaadu bu fekkee ne ñun ay jullit lañ yu bëgg a dund diine lislaam bëgg jaamu yàlla te duñu bokkaale ñu xam téere boobu ndax diine ku koy dund doo làmbatu lépp loo def rek dafa war a leer kon dinaa leen dénk bés bi nga xam ne ci lañ jàng ci lañ tànn di jàng téere bi wax nañ ko waxtu wi nga xam ne moom la ñuy commencé wax nan ko kon li ci des mooy lépp lu nu fi jël du nu nangu nag nit ñu fi du ko mokkal ndax du ñu jël lu bari ay daggit la ñuy jël ndax wax nañ ne téere bi dañ ko war a mokkal incha allah bismillah téere baa ngi nii téere bu tuuti la li tax sax ngeen gis mu xaw a dijji nii mooy dañ ko sharha ndax bii sharha muhammad ibnu qasim alhanbali al najdi la waaye bii ma yor ni sama loxo saaleh fawzan abdullahi al fawzan gis nga ñii ñëpp dañ ko sharh am na ñeneen ñeneen ñu bare bari ci àddina bi ñu sharh téere bi moo tax sax nga gis mu toll ni waaye téere bu tuuti la ah comme téere bu tuuti nag dañ ko war a mokkal su nekk partout la ñuy jël bismillah tey ñu ngi tàmbalee fi borom xam-xam bi tàmbalee ci téere bi qaala al muallif rahimahullah bismillahi rrahmani rrahim li ñuy jàng nag du man maay bind ci tableau bi ngeen di recopier mais man damay wax salon que li may wax yéen ci ngeen jàpp di bind suñuy tarix ci loolu laay fas yéene di laaj lu ma fi nekk di bind boroom xam-xam bi tàmbalee na téere bi bismillahi rahmaani rahim lu tax nit ñi dinañ laaj waaw yow boroom xam-xam bi lu tax nga tàmbalee téere bi bismillahi rahmaani rahim mu ne damay roy alquranul karim iqtidaan bi kitaabillah damay roy téere yàlla bi ndax téere yàlla bi boo fa demee loo fay fekk luñ ko commencé bismillahi rahmaani rahim loolu moo tax moom boroom xam-xam bi mu ne man tamit bi may taalif téere bi ma tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim kon téere boo gisati ci àddina bi ki ko bind daal di tàmbalee bismillahi rahmaani rahim buñ la laajee li tax borom téere bi tàmbalee bismillahi rahmaani rahim looy tontu ndax day roy téere yàlla bi di alquran ndax boobu bismillahi rahmaani rahim lañ ko binde fa inna awalu ma yaqa'u alayhi basaruka fi lmushafi wa qabla kulli suratin minhu bismillahi rrahmani rrahim nee na fa inna awalu ma yaqaw naga li nga xam ne moom moo njëkk a nekk moom ngay njëkk a gis alayhi ci moom basaru ko say bët moom ngay njëkk a gis fil mushaf ci kaamil bi booy jàng alxuraan nga ubbi kaamil bi li ngay njëkk a gis lan la fi kulli suura ci bépp saar saar boo ubbi rek di commence di jàng commencement bi loo njëkk a gis ci bopp saar bi bismillahi rahmaani rahim kon fal bidaatu biha fi rasaili wa fi lkutubi wa fi lmuallafat iqtidaan bi kitaabillah li tax ngeen di gis lettres yi téere yi li ñuy taalif chaque jour luñ ciy tàmbali lan lañ ciy lan ngeen gis ñu tàmbalee ko mooy bismillahi rrahmani rahim iqtidaan bi kitaabillah ndax dañ koy def ngir roy téere yàlla bi wa kazalika annabiyi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaktubuha fi awali risa rasailihi hinama yaktubu ila al umara wa ru'asa wa ila man fi aqtaari al ard yad'uuhum ila al islam yabda'u bi kitaabihi bismillahi rrahmani rrahim mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lettre yi mu daan bind buur yi ak yi mu daan bind njiit yi ak kilifa yi ci mbooleem addina bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lettre yooyu mu daan bind ci nit ñooñu lan la ka daan tàmbalee bismillahi rrahmani rrahim waaye wa kaana sallallahu alayhi wa sallam yaftatixu ahadisahu wa kalaamuhu bi bismillahi rrahmani rrahim hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay waxtaanam ci ay njàngaleem ci ay xutbaam ci lu ma mën a def ci àdduna lan la ka daan ubbee mooy bismillahi rrahmani rrahim mbokk yi loolu yëpp nag mimmaa yadullu dafay wone ala anna al bidaata bismi bi bida bi bismillahi rrahmani rrahim sunnatu rasul kon loolu yëpp soo ko déggee nga gis ko lan la lay won mooy ndekee bismillahi rrahmani rrahim sunnatu rasulillah sunna yonent bi la yonent bi moo tàmm lépp lu muy def lépp lu muy wax mu daal di koy tàmbalee bismillah kon yow jullit ndax boo déggee lii ci sa dund war ngaa defati dara te waxoo bismillah xoola yonent bi bu daan dugg duus lu muy wax bismillah allahumma inni a'udhu bika bu daan lekk lu muy wax bismillah allahumma bu daan génn buntu kër gi lu muy wax bismillahi tawakkaltu bu daan sëy ak soxna si lu muy wax bismillahi allahumma jannim na sheytaan bu daan dugg jàkka lu muy wax bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftah li gis nga lépp lu yonent bi di def xataa bu daan yëg ci waruwaay lu muy wax bismillah su yegee ba ci kaw mu daan ne subhaanallazi saxara wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina yonent bi lépp lu muy def day wax bismillah lépp ci addunaam bismillah suy lekk suy naan xataa buy tëdd lu muy wax bismika allah gis nga bismika allahumma amutu wa ahya yonent bi musta bàyyi bismillah lu tax ndax bismillah sunnatu rasulillah la sunnaam la moom yonent mbokk yi kama anna suleyman alayhi salaam lamma kataba ila balqis malikati saba bada kitaabuhu bismillahi rahmaani rahim am na benn yonent bu tudd Suleymaan Suleymaan kan mooy papaam Daawud Suleymaan bi muy bind buur boobu tudd Balqiis lettre Suleymaan lan la tàmbalee lettre bi bismillahi rahmaani rahim loolu la Suleymaan tàmbalee lettre qaala taala ala lisaaniha قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لولا سليمان دف بلقيس بمي لير تيري بي لالا بلقيس واخ اي يين مبولو مي جوخ ناñ ma ben téré indil nañ ma ben téré sanni ko ci man téré bi kat ma nga joge ci Suleymaan la ca nekk mooy bismillahi rahmaani rahim ñu daal di doog wax fi kulli amrin lahu ahamiya wa fi kulli muallafin lahu ahamiya wa lahu qiima wa kullu risalatin mbokk yi bismillahi rahmaani rahim bépp mbir bu am importance bismillahi rahmaani rahim dina ci ne bépp téere bu ñu taalif li ëpp bismillahi rahmaani rahim da ci nekk bépp mbir bu am valeur bu am qiima bépp lettre bu am solo bu jógee ci ab jullit bismillahi rahmaani rahim da ciy nekk wala haza looloo tax lan moo tax mbir yëpp bismillahi rahmaani rahim da ciy nekk lu tax laaj la bu bàyyeekoo ci man jëm ci yéen lu tax bëgg naa ci am tontu lu tax lépp lu borom xam-xam yi di def dañ ciy def bismillahi rahmaani rahim lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne kullu amrin zibal laa yabda'u fiihi bismillahi arrahmani arrahim fa huwa aqta wa fi riwaya ajzam wa fi riwaya abtar ñetti riwaaya ñoo ci yonent bi ne lépp lu nit di def wax ci bismillahi rahmani rahim loolu dafa dina dagg loolu du baax loolu du am barke naaqis annahu naaqisul baraka def barke bi day manqué du mat kon bismillahi rahmaani rahim dañ koy wax ngir lépp lu ñuy def mu am mu am barke yàlla def ci xéewal sooy lekk bismillah sooy naan bismillah booy tëdd bismillah booy solu bismillah booy tàmbalee jàng bismillah booy génn sa kër bismillah lépp looy def ci sa dund nga wax bismillah mbokk yi wa ala haza kon ci kaw lii falladina laa yabduuna muallafatihim wa rasailihim bismillahi rahmani rahim haulaayi taraku sunna nubuwa sunna annabawiya ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def dara ñoo ngi lekk ñoo ngi naan ñoo ngi sëy ñoo ngi tukki ñoo ngi liggéey ñoo ngi bind ay téere wala ñuy bind ay lettre te duñu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ñooñu lan lañu bàyyi ñooñu lan lañu bàyyi ñooñu lan lañ bàyyi ñooñu lan lañ bàyyi ñooñu lan lañ bàyyi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ bàyyi te sunna yonent bi mooy bismillahi rahmaani rahim mu ne ñooñu bàyyi nañu sunna yonent bi waaye bàyyi nañ beneen am na leneen luñ bàyyi bàyyi nañ sunna waaye am na leneen luñ bàyyi luñ bàyyi lan la royuñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam royuñu alquran wa rubama bi sababi zalik anna kutubuhum haasi wa rasailihim laysa fiha baraka mu ne looloo tax seen téere yooyu ñuy bind wala seen lekk yooyu ñuy lekk wala seen naan yooyu ñuy naan wala liggéey boobu ñuy def looloo tax yenn saa yi du am barke walaysa fiha faida du am faida lu tax is xallat min bismillahi rahmani rahim ndax turu yàlla moo ci nekkul amul bismillahi rahmani rahim fa innaha manzuatul faida moo tax faida bi du am du am njëriñ lisa mbokk yi looloo tax mbokk yi ñooñu ñu bàyyi taraku bismillahi rahmani rahim fa innama tarakuha li annaha sunna wahum yan fawna min as-sunna léeg-léeg nga gis ñenn ñoo xam dañ naan loolu sunna la rek loolu sunna la rek mbokk yi ku bàyyi sunna kan nga bàyyi yonent bi ku bàyyi roy ci sunna koo bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga bàyyi aw yuqallidu man yanqiru min as-sunna wala ñuy roy koo xamante ne kooku toppul sunna fa yan bari mbokk yi kon dina jaadu ci ñun attanabbuhu li misli haza dina jaadu ci ñun ñu yeewu ci loolu ñu yeewu ci lan lépp lu nuy liggéey lépp lu nuy def lépp lu nuy wax ñu daal di koy tàmbalee ci sunu turu boroom ndax kat yàlla tabaraka wa taala def ci barke ndax yàlla aar loolu ndax yàlla ñoŋal loolu ndax yàlla baaxal loolu léegi nag mbokk yi ñun ñëpp gis nañu bismillahi rahmaani rahim ni ko yonent bi fonke woon waaye laaj bu ñu war a laaj léegi mooy waaw fa maana bismillahi rahmaani rahim fa ma maana bismillahi rahmaani rahim lan mooy maanaam fa ma maana bismillahi rahmaani rahim lan mooy maana bismillahi rahmaani rahim tontu bi mooy al isti'aanatu bi ismillahi al isti'aanatu al isti'aanatu ah al isti'aanatu bismillah mooy lan mooy maa ngi ndimbandikoo maa ngi ut ndimbal waaye ndimbal boobu may ut fan laa koy utee ci yàlla waaye man bi ci turu yàlla laay utee ndimbal am na ñoo xam ne bu ñuy ndimbal lu ñuy wax ci sëriñ ci papa ci yaay ci sàmba ci demba ci móodu ci yero ci kodd ci dégéen ci ñooñu la ñuy ut ndimbal ku bàyyi yàlla nag utoo ci yàlla ndimbal nga dem ci keneen ndax dina am ku la dimbali te kat jullit boobu bàyyi yàlla di dem ci keneen di ut ci moom ndimbal bis bu nekk mu taxaw ci kanam yàlla naan ko wa iyyaka nasta'in te yàlla nee na fasta'inu billahi su ngeen di ut ndimbal ut leen ndimbal ci yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla yow rek laay sàkku ndimbal fasta'in billah sukkandikul ci yàlla utal ndimbal ci yàlla kon ki nga dégg muy def dara mu ne bismillahi rahmani rahim loo dégg lu mu def lu mu def dafa ut ndimbalu yàlla dafa bëgg yàlla dimbali ko ci li muy def mooy al istiaana qawluhu bismillah mu ne jaarun wa majrurun mutaalliqun bi maxzuufin taqdiiruhu astaciinu bismillahi arrahmani rahim astaciinu bi ismillahi taala nee na baat boobu ngeen dégg muy bismillah jaar la ak majrur jaar la ak majrur baa bi xarfu jar la ismu bi ismul majrur allah bi lafzul jalal majrur ilayhi bismi lu tax ñu maas ko mi baa xarfu jar kon ismu bi li ci tegu majrur la ne la nekk mara mu ne la jaar ak majrur la ah waaw mu ne léegi li muy tekki mooy astainu maa ngi ut ndimbal bismillahi ci turu yàlla aw abtadi u wala maa ngi tàmbalee bi bismillahi ki wax kii def dara mu ne bismillahi ñaari mbir la ñaari mbir la def ñaari mbir la def benn bi ndimbalu yàlla la wut beneen bi beneen bi beneen bi beneen bi dafa tàmbalee ci turu yàlla dafa tàmbalee dafa tàmbalee ci turu yàlla astainu aw abtadi'u maa ngi ut ndimbal wala maa ngi tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ah tabarrukan biha wasti'anatun billah gis nga mu ne tabarrukan ngir ma am barke ngir li may def mu am barke waaye wasti'anatun billahi waaye tamit maa ngi un ndimbalal ndimbalal yàlla gis nga ki wax bismillahi rahmaani rahim ñaari mbir la dafa bëgg li muy def am barke waaye tamit dafa bëgg yàlla dimbali ko ci ixwatal iman mbokk jullit yi fa hiya matlaun azim lil kalaami nee na lii njëriñ bu rëy la ci wax fenkukaay bu rëy la ci wax walil kutubi waaye ak ci téere yi ñu ko bind tamit war rasail ak ci lettre yi kon fal insaan yastainu billah fi bidayatiha doomu aadama lépp lu muy def daf ko war a tàmbale ci tur yàlla mu ut ci ndimbalul yàlla ca ba mu koy tàmbale wa yatabarraku mu barkeelu bismillahi subhanahu wa taala mu barkeelu ci turu yàlla bu tabaraka wa taala turam bu màgg boobu kon gis ngeen li tax téere bi am njëriñ xoola bismillahi rahmani rahim rek sëriñ bi ñaata yoon la ko jàngale la ñaata nu mu ko leeralee kon mbokku jullit yi maa ngi leen di dénk waxtu wu nekk bés bu nekk ci waxtu wi bu leen xaar ñu ne leen ñëw leen bu leen xaar ñu ne leen heure bi jot na ndax téere bi képp ku ko mokkal di nga raw say morom ci tawxiid di nga raw sa maas ci ngëm yàlla di nga raw sa maas ci dégg diine incha allah bu nu yàlla dimbalee ba ñu jàng téere ba mu jeex ki ko mokkal dina la jëndal cadeau bu rëy cadeau boobu xam nga lu muy nekk yow loo wax rek loolu lañ lay jëndal waaye booy wax nag na nga wax loo xam ne nit ñi mën ndax ñu dem ba boobu nga wax loo xamante ne nit ñi mënuñu ko problème lay indi kon waxal loo xam ne xam nga ne neex na baax na rafet na même bu seeree waxal loo xam ne jëndal la xam nga léegi nga mokkal ko nga ne ñu ne loolu ba nga ne dugal leen ma aljanna parce que ñu mun nañ laa dugal xam nga loolu mënul nekk ak yeneen yu mel noonu wala yéegal leen ma kaw asamaan wala wal leen ma yàlla xam nga loolu ñu mënuñu ko léegi nag waxal loo xam ne jëndal leen ma vélo jëndal leen ma nangam ah yooyu yoo xam ne nit ñi mën nañ ko ak yoo xam nga ne mënuñu ko jënd nee naa lu nit ñi mën waaw xam balaa ma leen di jëndal avion jëndal ko sama bopp kon dars baa ngi noonu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu aca ku am question incha allah bismillah